dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi de la témoin xëy di ñu xibaar na ñu avocat yi Ousmane Sonko yi ñoo ngi alerte ci lu jëm ci wàllu wér gi yaramam waaye du avocat yi Ousmane Sonko yi rek ndax ñi nga xam ne ñooy société bi ñoom tim jamono ji ñoo ngi alerté ndax nee nañu wàllu wér gi yaramu Ousmane Sonko jamono ji gëll góose na ba maara détaillé bu ñu si jëlul ay matokaay musiba mën naa am làmbaay mën naa ñaaw journal bi de la témoin nee na ku ci mel ni Seydi Gassama ak Alioune Tine ñooñee ñoo ngi alerté waaye maître Ciré Clédor Ly moom tim ma ngi alerté ba si maître ñëpp ñoo ngi alerté alerte ci lu jëm ci wàllu wér gi yaramu Ousmane Sonko bi nga xam ne nee nañu dafa gëllu góose te jamono ji maanaam musiba mën na cee am li am ba tey ci biir journalu Mamadou Oumar Ndiaye bii di la témoin mooy kàddu Alioune Tine daat nay wax ne bu ñu jëlul ay dogal yoo xam ne yu jàmpale yu gaaw la ci lu jëm ci wàllu wér gi yaramu Ousmane Sonko ak dundam dina gëllu góose te nag ma ngi ci dansé libéré Ousmane Sonko nañu ko libéré moom ak mbooleem ñi nga la ñu bale nag mbir mi di gën a jéggi dayoo balay bay di way mbuusa loolee di alerter ñi nga xam ne ñooy kilifa yi waaye ki ci jiitu di Macky Sall nee na ko nañu fexe ba ñeneen duñu dee yéen kaay gi ba tey moom Seydi Gassama nee na nag manifestation yi nga xam ne moo fi amoon am na si ñu bari ñoo xam ne dañu leen rey bal lañu leen dóora loole nag amoon ci réew mi nañu moytu mu am ci ñi nga xam ne jamono ji ay détenu lañu nekk ci kasu bi ba tey ci biir journal bi de Le Quotidien yor yor nee na en tout am ba de la faim mel ni maître Ciré Clédor Ly ñoom ñëpp yëkkate nañu seen kàddu yéenekaay gi la Tribune nee na en am ba des sàll juróomi fan a ngi nii Ousmane Sonko nan ko bàyyil grève bi Ousmane Sonko dundal ngir na nga mën a continuer xeex bi nga xam ne yaa xeex ngir Sénégal ngir Afrique ndax jamono ji am na ñoo xam ne yow la ci yaakaar yéenekaay gi di Vox Populi sëxën mu njëkk ma ñu fekk fa maître Khoureyssi Ba daan wax ne Ousmane Sonko jamono ji ma ngi jafe-jafe te loolee mooy dëgg nee na Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum faju gi jamono ji nanguwut kenn ku ko faja maanaam nee na tamit Ousmane Sonko nanguwut a lekk benn toq ndox rek Ousmane Sonko nangu ko dugal ci gémmiñam loolee kàdduy maître Khoureyssi Bala journal bi di critique nee na lu jëm ci wàllum coowul grève de la faim jamono ji ma ngi mel ni tulleeg màlle waaye nag Macky Sall dafa mel ni maanaam ma ngi tëx gumbaloo Macky Sall dafa mel ni yëgulu ko yaramama yéen kaay gi di libération xëy duñu xibaar naan ñu Bassirou Diomaye Faye ak Pape Abdoulaye ñi nga xam ne ñoo ngi ci kasu bi tey ji attekat yi nekk chambre organisation danañu lëmbat seen i mbir danañu ko càmbar yéen kaay gi de Le Quotidien xibaar naan ñoom mbiri Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall élection présidentielle 2024 ba léegi mbir mi leeragul ndax député yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi maanaam bind nañu saisir nañu conseil constitutionnel ngir nag ñu daal di annulé ngir nag ñu daal di niilal loi bi nga xam ne voté nañu ko jëm ci modifier code électoral bi nga xam ne ci la Karim Wade Khalifa a yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ngir Macky Sall tànn ab candidat jamono ji ma ngi ci guddi gu bët séddigu la ci xët mu ñu xibaar naan ñu lu jëm ci conflit bi nga xam ne moo am ca diwaanu Niger ak waa CEDEAO dogal bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jël intervention militaire loolee Ousmane Sonko ma ngi ci artu Macky Sall ak waa CEDEAO yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naa ñu ci diwaanu Géejawaay Sam Notaire xam ne Fallou Ndiaye la tudd am lu toll ci juróomi at moom lañ fa rey journal bi nee na enquête bi li mu wone mooy rey gu ñaaw la ñu ko rey ca kaw terrasse ba amul kenn koo xam ne jamono ji jàpp nañu ko yéen a gi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu gaal gi ngeen doon dégg ñu ne Fass booy la jugee te lu toll ci téeméer ak juróom fukk ñoo bi nee na gaal tëmb ci waaxu Cap-Vert yi am na lu toll ci fanweer ak juróom-ñett ñoo xam ne rëcc nañu si maanaam sowe nañu leen am na juróom-ñaar ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan am na juróom fukk yoo xam ne ba léegi kenn gisule na maanaam dañoo réer yéene kaay gi de la Tribune nee na ko waxal wax ji journal bi nee na lu toll si juróom benn fukk ak ñett faatu nañ ci géej gi yéene toll ci 7000 tonnes ci soble ñëw na ci Sénégal wàcc na si port autonome de Dakar journal bi nee na directeur général bu port jamono ji jël na ay matukaayam yi nga xam ne danañu ko def ci bato yi nga xam ne ñooy andi dund gi maanaam lépp mën a mucc pa journal bi ne na lu toll ci huit mille tonnes soble ñoo ngi koy xaaraata yéene kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar nañu ci diwaanu Géejawaay foofee tamit musiba moo dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dafa ëmb toll ci ñeenti weer jamono ji dafa riir ay mbokkam mama kunda la tudd journal bi nee na nag ak njabootam jamono ji tiit nañ ba mara détaillé waaye sax am na ñenn ñoo xam ne dañoo njort ne dañu ko kidnappé maanaam dañu ko teg loxo yéene gi nag nee na moom ëmb bi nga xam ne ëmb na ko juróom-ñetti fan ci weeru août la waroon a am doom